déggee ma waxee ko ba lépp li nga xamante ni mooy lu nit ki di dund ci fu mu mën a jóge ci moom mauvaise bi traitement général lu ko ci biir bi ak lépp pour ak pour bu ko defee loolu mën a une bonne fois pour tout définitivement képp ku ko ñu ci numéro c'est disponible boo ci commandé incha allahu rabbi euh, joxeel sa tur ñu defaral la garab bi su paree nga jël si ko Géejawaay arrêt kër Serigne Bara wala livraison à domicile foo mën a ci Sénégal ci territoire national dañ la ci mëna jox ba nga mëna jot ci say traitement inshallah allah ngeen jëf ñoo ngi leen di jaajeufal seen cabinet univers bio dañu dellu ci waat ci yeneen feebar inshallah rabbi merci allo alaykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra lay dekk Cambérène 1 waaw traitement fi alam bi content na ci de content na ci bu baaxa baaxa baax parce que sonon sonon na trop trop trop sama biir da doon jooy mënatumaa dem ci xewi yi dem ci ngenté yi man wax dëgg yàlla daal sëñ bi kontaan naa bu baax a baax moo gis alal bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax moo gis daal sëñ bi soloon na sololoon na ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fenn fen fenn kër gi sax mënuma ko woon a génn wax dëgg yàlla mais isaan yi daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënu maa mënu maa na dem fenn wax dëgg yàlla sant naa bu baax de jërëjëf mënu wax sax. mauvaise haleine kon ci loolu la ñu nar a am yéene pour waxtaan ak yéen ndax pour ñenn ñi dañuy am yenn jafe-jafe ci seen biir maanaam dañuy am ulcère wala estomac wala ay reflux gastrique maanaam dañuy sentir ay xeetu gémmin bu ñu wax ak ay nit ñi ñu dëmmooyu di wane ginnaaw di tëfli wala ñuy sentir ñenn ñi dañuy déranger wu dañuy déranger ay nit ba ñu ci bari ci ñoom dañuy sax takk masque ndax bañ a déranger ay nit surtout weeru koor gi loolu nak wax deug yàlla nek na lu sonal askan bi ñu bëree ci askan bi dañ koy sentir diko jàmbat dañ fay def traitement bi nga xamni da fay jëm ci walu mauvaise haleine généralement koy raxas si biir bi raxas ko bu baax ba mu set fep ci seen yaram ci walu ulcère walu estomac may la ay garab yi ko fac ci put bi ndax am na ñu xamni dañ am amygdale wala angine loolu itim ba tey day bokale ci gamme de traitement biñ lay jox day fajaale amygdale fac angine ak fu mauvaise haleine bi mëna joggé am na ñu xamni nak ne seen signe bi dafa am problème wala ñu am problème bucco-dentaire wala seen signes yi wala bëñ yi day am ay gàllankoor gam bii ñu leen di jox am na lu ñuy broso am na lu ñuy naan am na itam ay ñaan yi nga xamante ne dafa jëm ba ci wàllu ngelaw seytaane ñenn ñi ci seen signe la nekk ci signe bi bu ñu brosloo nee naa leen ndox mu xonq lay génne lu mel ne deret wala ndox mu jaune bi nga xamante ne day dem ba di am xet loolu yëpp dañ leen koy fajaaleel généralement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmande bi nga xam ni moom macha allah gamme complet la buy faj lépp lu jëm ci wàllu euh, mauvaise aleen comme ni ma ko junjee sànq ci wàllu ngelaw ak ngelawu seytaane loolu affaire rab la mën nañ leen ci mayaale ay ñaan dañ leen di jox ay garab ñaan nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu rab ak ngelaw seytaane dañ leen koy fajaleel ci biir traitement bi am na ci ñi nga xam ne itim affaire liggéey la dañ leen liggéey dëddale leen ak nit tagale la ak doomu adama yi nga xamanteni ni ñoo nekkoon autour de vous yaa ngi koy amee fii ci Dakar Géejawaay arrêt Dubales kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bii di Dakar 77 169 45 45 wala nga jël 77 646 41 21 am na livraison à domicile gratuite foo mën a nekk fii ci Dakar incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba. salaamaaleykum sëñ bis li ngeen ne mbaa yéen ngi si jàmm bu baax ñu nuyu di leen ziar lu bëree bëri leen ñaanal jàmm te di ko si yéen dama déggoon sa pilis la si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon bu ne bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni nit sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd ci ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ ne baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine yi fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex mu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi mu toll gëmewuma ko sax nag wallaay gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. salaamaaleykum. mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañu leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génne ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee. lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane. ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn rab. lii nag moom dañ leen koy mayaale. waa ñun waa univers bi yow ku soxla sunu numéro nag da ngay def 77 160 93 93. asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la Ibrahima Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi ah, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu ah, moo ma jox ko sa numéro ba nga ba ma ko yóbbante ba léegi ah, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la bu baax a baax baax baax parce que mun ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu. mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay jaare xam naa ni sama mbokki Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa baax a salaamaaleykum